distribution spécimen voilà gis ngeen noonu Guy Marie voilà gis ngeen noonu voilà gis ngeen ko noonu moment de campagne. moment de campagne on est en moment de campagne. Sonko kese Sénégalais de sortir. Sonko kese votre campagne correctement. kontaan nañu ñu jote nañu voté pour dégg ngeen dégg ngeen na nee na dañoo war joge jóge fii ma ne ko député Yewwi Askan Wi dañoo def recours. recours bi nag dafa dàqal loi bi nga xam ne dañ ko voté te mu nekk loi bu anticonstitutionnelle bu dee loolu am na mooy dañoo nekk si jamono campagne campagne dafa war a am donc ñoom police amuñu sañ-sañ ñëw nañu waruñu campagne ci campagne la ñu nekk te élection day am élection day am élection day am élection day am élection day am élection day am élection day am. élection day am. élection day am. élection day am. élection day am. ñun duñ fi nangu coup d'état kenn du fi nangu coup d'état. waaw mais du gis ngeen commissaire. waaw waaw. fekk police bu HLM moo ñëw fii ne ñu waruñu fi campagne. ma ne ko dañuy campagne. ma ne ko dañuy campagne dañuy campagne ba mu saf sap dañuy campagne ba campagne fu am fu warul am campagne ndaxte les députés de Yewwi Askan Wi dañoo def recours député yi dañoo def recours recours bi recours bi dafa suspendre loi bi nga xam ne moom la Macky Sall votellu donc élection day am ñu ngi ci campagne fekk conseil constitutionnel attewul recours bi nga xam ne moom la ñu def campagne day am. merci moo tax ñun. leaderu coalition Diomaye président ñu wàcc fii ci terrain bi. ku ngeen àndal. ku ngeen àndal. campagne dañuy campagne dañuy campagne fii ci HLM ñëw fekk si waa HLM campagne ak ñoom suba nii lay demee gannaaw suba nii lay demee kenn du ñu tere campagne kenn du ñu tere campagne élection day am 25 février 2024 kenn du fi nangu coup d'état ku ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal ngeen àndal. Sonko ku ngeen àndal. Sonko ku ngeen àndal. Sonko ku ngeen àndal. dégg ngeen. Sonko ku ngeen àndal. Sonko ku ngeen àndal. Sonko ku ngeen àndal. Sonko ku ngeen àndal. Sonko ku ngeen àndal. ku ngeen àndal. Sonko ku ngeen àndal. élection day am. élection day am. élection day am. bu forcé. élection day am. xamante ne moom la ñu wax jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy euh, campagne bi la le moment dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne wax na ko en tout cas jëmale li nga xamante def élection 2 avril Macky Sall abal Sall abal ñu buy jalagee wala ñuy falsifier ay signature ancien chef d'État seen affaire la la complot ñu nekk ci complot dara jël leen tey dañoo bëgg leen a wax ni wax dañoo bëgg a dialogue. ñuy abal donc sénégalais restez mobilisés inchallah report bi du am élection dafay am batoonu ensemble pour réussir suñu candidat Diomaye suñu candidat Ousmane Sonko merci yu am fayda dinañu respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu naa suñu société yëngatu naa dinañu am fayda dinañu am fayda dinañu respecté suñu Sénégal